Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa barakaatuhu mbokk yi ngi leen di nuyu di leen ziar yeen yi nga xamne yeena and ak ñun ci al khadimiya ci jotaay bi nga xamne moy mooy kor. Tay ji ñu andi leen beneen xadiis boo xam ne Ali sallallahu alayhi wasallam da ci wax ne aljana juroom ñetti buntu am nafa Amna na ci buntu bam tini ñing koy wooye rayyan ñen du fa dugg ñu dul ñi nga xamne ño doon wor ci aduna muy hadith bam di abu hurayra moko jele ci mom al imam al Bukhari solo ko fil jannati thamaniyatu abwab fiha babun yusamma rayyan la yadkhuluhu illa as-saimun moy hadith bu am jariñ bo xamne liñ ci mëna jariño moy mooy koor na ci yenn yi nga xamne ne na sabab nit ki duggi aljana waaye bokk na ci liñ ci mën a jariñoo ba tey mooy ñu xam ne àjjana juróom-ñetti bunt la comme ni ko yonent bi alayhi salaatu salaam waxee waaye bokk na ci liñ mën a jariñoo ci xadis bi ñu xam ne yàlla suñ borom subhaanahu wa taala jagleel na way woor yi bunt boo xam ne ñoom rek ñoo cay duggee ëllëg yawmal xiyaam ñu di ko waaye rayyaan te kon loolu li muy tegtale mooy teral way woor ñi ak jox leen wàccuwaay ak kaweel seeni mbir waaye bokk na ci liñ ci mën a jariñoo ba tey ñu xam ne yoolub koor yàlla rek mooy ko xam moo xam ni mu toll ndax root na ci beneen xadis suñ boroom wax ne kullu amal ibni aadama lahu illa sawm fa innahu lii wa ana ajzi bi jëf ju doomu aadama jëf moom la ñeel ba mu des koor koor man maa ko moom waaye maa koy fayal sama bopp kon ñu ngi leen di dikk beneen jataay ak beneen xadis wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu